الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات ربي وسلامه على الحبيب محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد عدنا من جديد في برنامجنا العقيدة أولا يا عباد الله mbokk yi ñu ngi santaat sunu borom yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne du ñu deñ di ko sant te du ñu deñ di ko ñaan mu boole ñu ci jaamam yi nga xamante ne du ñu deñ di ko sant di ko dimbandikoo di ko jéggalu sunuy bakkaar di yeesal sunu tuub ak sunu jéggalu di wane nekk gi ñu nekk ay jaam di wane eh, aajawoo gi ñu aajawoo jalla jalaaluhu wa azza kamaalu moom mi nga xamante ne moom mooy alxani moo tax moom yàlla xamida nafsahu qabla xamdi alxaamidin wa سبح قدسيته قبل تسبيح المسبحين وشهد وحدانيته قبل شهادة الموحدين مم يالا موي كي سانت بوبام نجك كين ولا لين ديكو سانت موي كي سبال بوبام نجك كين ولا لين ديكو سبال موي كي سيدني امول كين كونو ورا جامو سي دغ موم يالا موكو نجك سيدي موتاخ موخ القران شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم يلا من شهد الله يلا سيدنا لولو توحيد الله lan la yàlla seede annahu laa ilaha illa amul ku ñu war a jaamu ca dëgg ku dul yàlla mbokk yi lii dong moo di dëgg nag te mooy des di dëgg ila an yarisa allahu al arda wa man alayha mbokk yi dellu siwaat nanu ci sunu émission al aqidatu awwala maanaam pas-pas moo war a jiitu ndaxte moom la jiital moom la yonent bi jiital waaye moom la saxaaba yi jiital suñu fàttalikoo bi yonent bi sallallahu alayhi wa di yónni Muaad fële ci Yaman bokk na lim ko waxoon te ko ne innaka taati qawman min ahli alkitab bul fàtte ne fi nga jëm yaa ngi fay fekk ay woromi muy ay nasaraan mu ne ko falyakun awwal ma tadcuuhum ilayhi ila an yuwaxidu llah feneen fi mu ne ko euh, maanaam na nga fexe ba la nga leen di njëkk woo jëme ci mooy ba ñu wéetal yàlla mu ne suñu defee loolu nag nga xamal leen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci lan ñoo ci topp kon mbokk yi euh, tuddoon nañu ci sunu téere bi ne kat war na ci jullit bi taallumu hadihi almasail althalath mu jàng ñetti masala yi waaye jëfe ko tuddo nañu bu jiitu bi mooy mu xam ne yàlla ñu sàkk moo ñuy wërsëgal te bàyyi wuñu fi ngir neen ba loolu moo tax mu yónni ay yonent képp ku leen topp am tawfiqu daarayni waaye képp ku leen mooy am jafe-jafe yàlla na ci yàlla musal ñaareel bi ci ñetti masala yooyu mooy jaam bi xam jàng ne anna allaha la yarda an yushraka maahu ahadun fi ibadati maanaam jaamu gi ñu war a jaamu yàlla yàlla du nangu mukk ñu bokkaale ka gis nga yàlla li mu ah maanaam wala li ko war a defal ci jaamu yàlla moom dong nga ko war a defal waroo ko boole kenn moo xam kenn kookee ab malaaka la moo xam kenn kookee ab yonent la bu yàlla yónni waaw kon loolu lu jara bàyyi xel la mbokk yi moo tax bokk na ci yooyee ñuy jaamoo yàlla nekk wàllu pas-pas mooy nga gëm الغيب كم لا يعلمه إلا الله كن خمك كدول يالا ورسول برمي على دي القرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله خمل خمل كن كنك خمكم به كي أسماني ولا كي سوفي كدول يالا موتا خولين aminu ahli sama ki yàlla wóolu ci asamaan si bi mu toogeeg aminu ahlil ard ki yàlla wóolu ci suuf si di muhammad sallallahu alayhi wa sallam kele di jibril bi kenn ci ñoom laajee ka ca des nee ko mata saa kañ la bisu penc lan la ko moromam ma tontu de ko ne mal mas'ulu anha bi aalam min assail ki koy laaj kii de ah maanaa kiñ koy laaj gënu koo xam ki ko koy laaj loolu misaal la ci rek kon mooy nit ki jàng xam jëfe xam ne kat anna allaha naka yàlla laa yarda du gërëm te du mës a gërëm jaamu yàlla yiñ ko war a defal ñu ko koy boole kenn tuddoon nañ ne tawxid an baabil istiqra soo jàngatee alquran ak sunna di nga yëg ne ñetti façon tawxid moom moo am léeg-léeg su la neexee nga ne ñaar benn bi dugg ca ba ca des muy tawxiidu rububiya nangul yàlla yemu jëf lu mel ne moo bind asamaan moo bind jaami mooy dundalaate mooy rey yii ay mbir la yoo xamante ne même bokkaalekatu démb ya gëmoon nan ko waaw ñaareelu xaaj bi mooy tawxiidu uluhiya mooy wéetal yàlla ci ay jëfam lan mooy tawxidul uluhiya mooy jaamu yàlla yi ñu yàlla digal yi ñu koy def ñu koy ñu koy def jëme ko ci lu mel ne ñaan jaamu yàlla boobu di ñaan nga xam ne yonent mu wax ne adduaa huwa al ibada maanaam ñaan mooy dëggi-dëggi jaamu yàlla waaw mooy lan jaamu yàlla ñaan googu nga xamante ne ci mbir yi nga xamante ne kenn mënalulu ko kudul yàlla foofu la ñuy wax loolu kenn amul droit ñaan ko keneen kudul yàlla lu ne tawfiq lu mel ne wërsëg wu yaatu waaw mel ne jàmm waaw lu mel ne ak wér lu mel ne euh, maanaam tawfiqu àllaaxira yi yëpp yàlla subhaanahu wa taala lañ ko war a lan lañ ko war a ñaan kon ndekete bokkaale lan lokkaale baaxut mu ne tegtalam mooy li yàlla wax لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا بلا لولو دليل بمنجك إندي مودي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله jaamu كايو يالا يكت يالا يالا يالا yàlla yàlla فلا تدعوا مع الله أحدا بلن لن bu leen woo di booleeg yàlla lan di booleeg yàlla kenn kon ndekete eh, shirk lanul shirku baaxul ñetteel bi mu ne xamal ne anna man ataa rasul képp ku wommatul yonent bi wa waxada allaha ngay góorgóorlu di wéetal yàlla mu ne ku mel kat laa yajuuzu lahu du dagan ci moom muwalaatu man xaadda allaha wa rasulah di mana mana di bokk ak di jàppalante ak di bëggante koo xamante ne dafa noonoo yàlla noonoo diine yàlla ji noonoo rasulullah mu ne lii de rafetut su fekkee ne waajoojee cofeel googu muy woote ci yàlla cofeel googu muy woote ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam war na nekk barrage ci moom ba ki nga xamante ne dafa noonoog yàlla akub yonentam di xeex diine yàlla ji kookee moom du lan maanaam du ko bëgg waaw moo sunu borom yàlla mu ne eh, wala mu ne walaw kaana aqrabu qaribin donte kooku ki la gën a jegele ci nit ñi moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa di wax ci alquranil لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر yàlla mu ne doo fekk mukk ki wax ne gëm na yàlla gëm na bisu penc mu nekk lu dëggu ci moom yàlla mu ne ku mel nii doo ko fekk mukk yuwaadduuna man xaadda allaha wa rasulah di xaritoog di bëggante ak ki nga xamante ne dafa ŋaas ŋaas loog yàlla akub yonantam waaw maanaam dafa bañ yàlla akub yonantam dafa kontur yàlla akub yonantam yàlla teg ci mu ne walaw kaanu aabaahum abnaahum aw ixwaanahum aw ashiratahum donte kookee noonog yàlla akub yonantam seen waajur la donte seeni doom lañu donte seeni frère lañu donte seeni mbokk lañu parce que mbokkoo bi gën a dëgër ci mbokko yi mooy mbokkook la ilaha illa allah kon yow tey soo taxawoon di taxawal laa ilaha illa sa doom wala sa waajur ñëw di mabb laa ilaha illa allah kontur yàlla akub yonentam nekk yéeféer bu bon yow jullit boobee ah lañ la digal moo di lan amoo droit bëgg ko mbeugeluk li nga xamantene mom moy diine su fekke ne nak xexul diine lislaam terewula nga jàmmoog moom moo tax sunu borom yàlla di wax ci benen aya la yanhaakum allah an alladina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum yàlla terewula nga sekk ak jam yàlla terewula nga dimbalante yàlla terewula nga dëkk ak yàlla terewula nga lan ngay jeflante lu bax ak yéeféer bi nga xamante ne xeexu la ci sa diine bàyyi na la ci sa jàmm génnewu la ci sa dëkkuwaay waaye nag innama yanhaakum allahu an alladina ki leen di yàlla di tere ngeen xaritoog moom bokk moom ay mbir mooy ki nga xamante ne day xeex diine yàlla ji taxaw temm ne laa ilaha illa allah dafiy lan dafiy jóge moo tax sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu nii dëggoo nii mu ne ulaika kataba fi qulubihimul iman ñii daal yàlla tabbil na ngëm ci seen xol wa ayyadahum bi ruuxin minhu moom yàlla kattal na leen eh, doole bu bawoo fa moom wa yudxiluhum jannatin tajri min taxti al anhaar te xalseet na leen a duggal aljanna yoo xamante ne ay dexay daw ca ga xaalidiina fiiha fa sax ba dàkk anhum wa radu anhu yàlla gërëm na leen ñoom gërëm nanu li leen yàlla defal waaye it kontaan nañu ci borom bi subhaanahu wa mu ne ulaika xizbullah ñii de ñoom ñooy péetey yàlla ala inna xizballahi humul muflixuun te péetey yàlla yi ñoom ñooy nekk lan ñi gañe yàlla nañ ko yàlla defal kon mbokk yi ay eh, na ca ñamu wàccoon moom mooy abu ubayda amir ibni jarrah abu ubayda ci xarek badr dafa janoog waajuram moytu ko waajur wa toppaat ko moytu ko waajur wa toppaat ko waaye bi mujjee songoo doom ja taxaw ngir la ilaha illallah jëm ci kaw waajur wa ñëw ak eh, xeexu kaayam ngir bëgg laa ilaha illallah fay bi ñu songoo ndeysaan waajur wa daanu gaa ñu ne ah diw de rey na waajuram waaye ndeysaan yonent bi sallallahu alayhi bi mu déggee mun leen déedéet mun leen wéetal yàlla rey na bokkaale kon lii day wane ne yow ki gëm yàlla amoo droit di maslaa ki nga xamante ne day xeex diine yàlla ji yàlla nañu yàlla musal ci li nga xamante ne moom mooy xeex diine ji kon daal nañu yitte woo pas-pas yëg ne kat al aqidatu awwala pas-pas yi moo war a jiitu su xasee ba dëgër lépp dëgër dañ ñëwaat incha allah ci njëriñu yitte woo pas-pas taxawaay bi ci nekk kon daal euh, seen mbokk Mouhamed Ibrahim kan moo dellu si waatoon tey ngir ñëw ak yéen ci ànd nafar li nga xamante ne moom mooy sunu pas-pas di ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral pas-pas yi waaye di ñaan yàlla subhaanahu wa ñi nga xamante ne ñoom ñoo sabab jotaay yu am solo yi يالنا يالا دف ليب في موازين حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دي جمعية أهل القرآن الكريم بفاسوري لنيو بقل تمت خيات ويتي ونيو جنان يالا يالا يالا دف لكا ويسانك جورت وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته